mënuñu ko affaire bi ñun néew di doole yi dërëm bu taw bu taay xoolal mouvement bi dafa war a gën a yaatu dafa war bëri parce mbooloo mooy doole lañ wax muy xale mag ndaw jigéen ñëpp nañ ñëw parce lu ñuy dund moom lu ñuy dund ci taan dee ko gën parce que ku si nekk Sénégalais boo gis lu métti soit yaa ngi jooy lu métti lépp lépp lépp lépp Macky Sall la ak gàngam rek affaire mafia lay jaay te ñun ñoo ko ëpp mafia gën ko saf parce que ñun la Sénégalais yi te tey lay commencé ba ilaa yow mi dinañ ñu ak moom duñu taw duñu taay duñu dem duñu bougé ni ñu defoon bee passé koy def dañ ko fiy jëlee par nervi du affaire de armée affaire ba askan bi askan bi la ñun ñoo ëpp doole ñëpp du ñu tellu un pas un pas duñ ko tellu jamais jamais ragaluñ ci dërëm bu soobee yàlla nag bis ni tey na ñëpp déglu gars yi nañ déglu bu baax nañ déglu bu baax parce que taan bi ni mu demee nii dafa jot mu jeex tak tak tak tak nekk ci taan bi di séddoo milliards yi di may milliards yi di dee gaal bi kenn ko tudd gars yi di dee jeel bi. booy duñu am joob loolu yëpp ñun ñoo ko teg suñu bopp mais bu waree dañ nag ñun ñoo war a jug fippu parce que doomu adama boo ko nootee day jur loo xam ne mooy loolu moo tax instant yi jot ñu fippu parce que boo xoolee Sénégal quatre-vingt-dix pour cent quatre-vingt-quinze pour cent ñoom ñëpp Y'en a ñoom ñëpp Y'en a marre ñëpp jot instant yi jot ñëpp jug taxaw na ñëpp jug taxaw ñu mbooloo mooy doole xolal opposition beeg waa mbedd ñi nekk si partenaires yeeg ñëpp dajaloo doon benn pour jëlee fi Macky Sall amul lu ñuy daw amul lu ñuy daw parce que ñun si dëgg lañ si dëgg la ñuy teewee Sénégal moom du dëkk bu ñuy forcer sax affaire dynastie amul ku fiy jaay dynastie dañ lay génnee fii Sénégal benn bopp la muy lebu bi muy njaago muy joolaa bi muy séeréer bi muy pël muy tarixa yëpp muy tiijaan muy xaadiriya muy murit ñëpp benn gaal la gaal bi ku ko nar a nag da ngay ñun premièrement si man man man kuy jéem a digal gaal soo kaana ngay njëkk amal affaire soo kaana ak mafia bi mooy yéen duñ daw duñ daw duñu musa bàyyi tey lay gën a métti tey lay gën a doon benn yaa ma gën a xam mais si jàmm de nekk si jàmm ñëpp ay saan ñëpp mafia